man dafa am lu ma koy bañal. boo gisee chaque jour du ma tontu bu musul def vidéo ma ma mm. bu vidéo yi mu def 67 vidéo la ci man 67 vidéo moo nekk ci kale SBR xam nga tey problème bu la saa ko posé di ñëw fee rek fi ma fekkoon foofu rek yow ma dugg ñu ma xoolee vidéo la lépp man la lépp mais du ma tontu. xam naa ne li muy wax mer muy wax. ak comme ni kii wax dañ la bëgg te duñ jot ci yow. Hmm. mais ku xam man ku ma xam xam sama mbapat sama jaar xam li ma daj man maa kii ñoo bokk tamit ci man daal moom moom wax na ko moom xool beneen sànni xeer bi muy sànni xeer nee na moom lu jëndal deux cent xawma la loolu rek lay lekk. <laughs> ma ñaaw la am <laughs>

sincère sincère moom li ñu bëgg a dégg loolu xam nga tey moo na tey xaw ma maa tooñ maa la boole kii tooñu ma tooñu ma xam nga mooy koo séq dara loo xam ne tooñu ma dafa juum juum day moom dem na ba ni man damaa juum tey bi may waxtaan ak magam bi tey man li ma waxtaan ak moom sax moom dina comprendre ne man bi am na fu ma bëgg mu àgg muy moom muy sayar man mag ji dafa wax ma ne ko man ci famille bi laa bokk bu xamul ni ci famille bi laa bokk bokk ni mbar non non ma def mooy ci famille bi laa bi waxee dama ko mel ku pel téléphone bu ci jàmmal leen te moom naa woon ci am ñu waxtaan ak sayar bi ma wooyee bi waxee dama woon sa waay bu fi ñëw dale ma dama ñëw ci yow ma bu fi ñëw loo bëgg mënoo noo buusa ma ko jeex buusa ma rek la laa jëfee li des ci moom lay des ci des mooy te yàlla may na ko xale la mais buy génn day génn mbooloo yàlla may na ko xale la mais dañ koy déglu mais bu mu yàquloo yàquloo mooy ñu lay jël ñu dugal ci loo xam ne tey ñooñu mënoon ñoom duñ ci dugal seen bopp wala seen bokk te guddi yi ku la ne da am fit man mm-hmm. mm-hmm. ku la ne da nga am fit mm-hmm. am fit gi xam nga lan la liggéey sa combat jàpp benn booy ci arrêt bi dóor ko ba mu ni bët loolu mooy fit ku la dugal ci leneen barki seen naam deux jours yi yow war nga xam lépp ñëpp ni tekk arrière maa woo téléphone ne la ana ñu doon wax nga ne ma gisuma kenn loolu rek firnde la te man nag doxewu noonu man dama bëgg bu problème amee li may wax man ma gëm ko man li may wax ma gëm ko. kii amul ma ko jàppal. su ma ko jàppaloon du ma toog fii. su ma ko jàppaloon moom xam na man xam naa Zarko ni xam na Fallou Ndiaye xam na. Pape Mama tamit xam na. di dox ci lu rafet. ma nekk moon fii. sama bëri damaa xonk nii ak propagande bi ma dóor ma xam ne xonk te nekk moom fii na fi nekk fi fi ma nekkoon mais bu ma tëddoon tey rek wala ñoom moon tey rek boobaa man la ñuy màpp. wallaahi ne ko ma. gars yi sama xol nekk samay science boobu. jënd li jënd problème bi. toogee ak ak ñoo xam ni tey buñ lay conseillé wala buñ lay wax dañuy wax loo xam ni sax comprendre. Hmm. des fois ñëw ci bu dégg guy gi parce hmm. que vidéo bi. bu ko defee dañuy mu aggravé woo. te gis ne vidéo bi. bu soññoon ci tànk guy da koy fomp daal la guy man booy yi may àndal barke alxuraanu karim ànd maag booy boo xam dina si Boury Siteu ku sax du ci wax kee moo xam sama jikko kee toog nee borom lu yëre Boury lii kii lu mu la wax ci Boury lii ko laaj ko ndax sama kër nit dina fa toog di jëw nit ko ndax dina fi toog di jëw amul parce que ki lay jëw moo la yóbbul waaw indi ki indi moo la yóbbul du ma ko def man kilifa laa mar barki démb ak affaire amee. da nga da nga naan kii tuuti mu lekk bu Siteu. mais bu toogee maag moom. rafet lay wax. du maanaam kon bañu ko. loolu mooy nit. parce que li tax def loolu bëggu ànd bu Siteu ci naa féq bu Siteu di dina ci loolu. yàqula yàqula keneen. léegi bu Siteu bu gindi koo dina ni kat bi ma nekk ko ci jafe-jafe ah maa la que nii la doxewoon kon kii sama dina naa ko téye. Mm. booy téye ci ay nit boole ko ci waaye ku naan la non gaynde kii nangal bàyyil bu ñëwee dama koy defaral fii kenn du defaral kenn kii kenn du defaral kenn xam nga tax ma kenn defaral kenn bëri na ñoo xam ni dañuy dugal ci dara toog billaahi ñooy toog di wax si yow te bu ma doon leeral buusi la day jàpp gémmiñam léegi message bi jàll de no xaar xaar jàpp gémmiñam mais hmm. kii du ma dugal boppam ci loolu xalaatuma ko ci àdduna dama xam ne ma dugal ci boppam hmm. def pendant carrière bu baax mm-hmm. comme ni guy gi def mu am lu ko ëpp mm-hmm. mu am lu ko man loolu laa koy ñaanal. bu nga nettee ci guy gi xam nga jikko yi guy gi guy gi melul noonu. moo tax war a déggee nga ni noo moog nas ñoo kii ba eh bu c'était def de heure. non non loolu ay fo. non non non loolu. c'est bon c'est ci lañ ñëw jàmbaar bi ci lañ ñëw parce que parce que lii la ba rek